abdurahman doomi suñu sang abdullahi ibnu mas'ud yuhaddisu an abihi moom abdurahman muy nettali jëlee ci baayam abdullahi ibnu mas'ud an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam mu jëlee ci ki yàllay waxal suñu sang sayyiduna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne nadara allahu yal na yàlla nataxal imra'an imra'an as cam samia koog dégg na maqaalati sama wax fa waaha mu mokkal ko wa xafidaha te wëttu ko wa ballagaha te mu jotale ko nim ko déggee fa rubba xaamili fiqihin bari na aji yenu ju fiq ilaa man huwa jëm ci koo xam ne hu ilaa man jëm ci koo xam ne huwa moom afqahu minhu moo ko ko gën a dégg ta tax booy nettali nettalil ni nga dégge bul yokk bul ca wàññi ndax ki nga koy jox mën naa am mën a jottali ko texte bi ba dégg ca loo ca déggut te boo ko interprété te leeraloo ne lang ca yokk sa interprétation la mën nga def musiba salaatun laa yuxallu alayhinna qalbu muslim ñett ngi yoo xam ne xolu jullit bu ca xolu jullit bu nekk boroom xol ba du amuk mbañel boroom xol du xat boroom xol du feebar wa nazaxna ma fi sudurihim min xil bu njëkk ba mu ne ixlaasul amali lillah sellal jëf te yàlla tax wa munasaxatu a'immati lmuslimina laayante biir ak njiitu julliti wa luzum jamaatihim ak taqoo seen mbooloo fa inna daawata daawa gi tuxiitu dafa dafay pek min waraihim ci seen gannaaw ñett yi ku mu nekk ci sa xol mel nga na war a mel looy def na yàlla tax bul xaste bul ñàkk kersa waaye fexeel ba li yàlla bëgg njiitu jullit yi boo ca am boo amee agsi ci ñoom nañ ko dégg nu ñu defee nu dul noonu na nga fexe ba génne leen ca kem sa talaayu kàttan àndal ak mbooloo mi itam ndax till gàtt ba beru lay lekk seytaane it ki beddeeku la gën a mën a yàqal hadis ji parti bu njëkk bi it mu ngi ñuy won importance su sunnaay yonantu sallallahu alayhi wa ak solo gi am solo mokkal ko ba yonantu di ñaan kii def loolu yàlla nëtëxal ko boo ko mokkalee it nga joxe ko ni nga ko déggee te bu ca dugal sa yëfi bopp ndax yonantu moom la yàlla jox jawaami al kalim moo gën a fasaxa gën a am balaaxa mooy sayidul bulaxa le prince des éloquents hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin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 muy diine dîner fundraising bu mag boobu nga xam ne mu ngay xewee ci Staten Island ci taxawaayu ICFA buñ ko waxee nag sunu xel yëpp def ci imam Muntaxa saako borom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag gi ki miin Makka ak Medinatul Munawwara nee naa la imam Muntaxa Sakho mooy éviter mbokki jullit yëpp ci Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue Cees saatanaay leen nee naa la masjid bu mag boobu imam Mountakha Sakho ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy wootee muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servir la nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla imam Mountakha Sakho bis ba agsi na kañ lay doon yemook samedi décembre 20 heures 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg na ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee la ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam ne ne satan ay leen lay xewee kon mbokk yi lu ci waay am te bëgg ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 265 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne nii tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg a jàng sa lislaam da mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla imaam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko kenn tardé noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag rawatina consulat yi ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le 23 décembre fii ci Staten Island